seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu fii tay ci stade wala terrain Adrien Senghor ndaysaan ki ñu fi woo di Jax Wrestling Academy ndaysaan moom mu organise bis bu rëy mise bi nekk un million ay ndaanaan yu bari tey ñu gis leen fi ci xeetu favori gis nañ fi xale bu mel ni tas yaakaar ndaysaan gis nañ fi ku mel ni Gaskel Jammeh ndaysaan gis nañ fi ku mel ni ndaysaan Boy Faye ndaysaan gis nañ fi ku mel ni X9 ndaysaan gis nañ fi ku mel ni xale bii di Kalmu Ndour gis nañ fi ay xale yoo xamante ne ay ndaanaan lañ ci làmb ay favori lañ tey ci bis bi ñëw nañ wane seen bopp ci bis bi tey yaakaar naa ni xale yu bari ñëw nañ yaakaar naa ni xale yu dul jeex ci làmb ñëw nañ tey làmb ji dina riis tey làmb ji dina neex jaasi pël a ngi noonu xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb mu ngi ci compétition yi di wane boppam ma nga fële ci écurie Soumbédioune suñu papa booy Kayre moo ko bu nekk xale boo xamante ni ndaanaan la rawatina ci li traditionnel bi muy ñëw ndaysaan ku nekk ak sa mënukaay ku nekk ak sa jëf mbokk bu leen jaaxle Modou Lo Baldé gaynde la ndeysaan boo xoolee Ismaïla Sarr gaynde la ndeysaan boo xoolee Mendy le grand gardien gaynde la ndeysaan du ma fàtte le grand défenseur ndeysaan gaynde la sama xel dem na ci Bamba Dieng ah Tmax daan na Boy a ngi noonu ma ngay yëngal ndeysaan Korsira a ngi noonu gonek parcelle gaa ngi noonu le grand champion Boy ma nga noonu champion chef de CEDEAO mu ngi noonu Boy champion chef de l'État Boy Faye mu ngi noonu Boy Faye le meilleur ma nga noonu xale la boo xamante ni ndaanaan la ci làmb waaye bëre dóor bi namm nañu ko na ko adversaire jël mu ñëw wane boppam bëree ndeysaan làmb saa su ngay gis ay ndaanaan xolal booy fay dafa jekk ndaanaan la xolal ma njàppi ndeysaan ma ngay yëngu ma ngay yëngu ndeysaan Ngor Sira Boy Faye ma nga yëngu bu leen drapeau chef de moo ko jël représenté Diourbel jël ko barki démb moo njaay tournoi CEDEAO moo ko jël par équipe ndaysaan nekk ndaanaan moom Boy Faye ma ngay def ay preuve fii ci lutte traditionnelle bi warta bàyyi kee di dem ci làmb la bokk moof na ko daan daan na doole yamul déedéet waaw waaw yaa si noonu moo ngem moo ngem lu ginnaaw moom it ndaanaan la ci làmb ndaysaan combat bi mujj arène nationale ndam la fa suñu papa Boy Kayre moo ko indi woon compétition bi lu muy dem ngay gën di gis ay ndaanaan ndaysaan ah daan na ko mbër yaa ngay daan benn bër avertissement Gaskel Jammeh moo la féetee ndi joor ngemboo ngemb Lagos moom it ci favori la bokk xale bi muy bëreel na poids léger la ndaysaan premier tour yi noonu lay demee xale bu ci nekk poids léger doo am sens ci kaw poids lourd yi Gaskel Diamé ndaanaan la ma nga noonu moom ngeen jàkkaar lool moom Gaskel ndaysaan gëng gëng ay waaw waaw gëng ndaysaan gëng lamba ngi gaskel faqat na xale bi da koy daan kat api am na gaskel day daan ci favori yi la bokk daan na yaakaar ci compétition bi parce moo la féete ndi joor moom it ci favori la bokk ma nga ca ndeysaan tas a ngi noonu fàqat na xale bi daan na ko tas yaakaar daan na Calm Ndour Grand Mbagnick ndeysaan Grand Mbagnick moo la féete ginnaaw moo ngem moo ngem xale bi xale na ko fi ko takk baax na xale bi ko takk da ko baax na dina ko daan wala déet xale bi ah daan na nee ko rendi naa ko rendi Sané xamuñu foo nekk waaye tey namm nañu la ndeysaan Thiaka Faye xamuñu foo nekk waaye tey namm nañu la ndeysaan Serigne Ndiaye 2 xamuñu foo nekk waaye tey namm nañu la ndeysaan ndeysaan lamba ngi wër na ko ndombo Gaskel Jammeh wër na ko ndombo xale bi daa bëgg a génn Gaskel wër wër na ko xale bi bañ na Gaskel Jammeh wër na ko ndombo ndeysaan ci tuus bi sax dañ koo bëgg jugaat na daanoo ba tey lu nar a xew xale bi ak Gaskel Jamme lu nar a xew xale bi ak Gaskel Jamme lan moo nar a xew xale bi ak Gaskel Jamme Gaskel wër na ko ndombo mais xale bi daa bañ daan na Gaskel daan Boy Faye Alpha moment bi Boy Faye di bëreeg Alpha Sénégal dugal na première biom ndaysaan Famara Diédhiou moo ko dugal ñuy félicité passe bi Sadio Mané le grand champion <laughs> ndaysaan doomu Bambali bi eh. waaye lamb jaa ngi toj fii ci stade fii ci arène Adrien Senghor waaye équipe nationale bu Sénégal mu koy yëngal fële ca Cameroun allez les Lions allez ay góor ay joxante fii ay góor ay joxante fële Boy Faye mot na Alpha daan na ko Boy Faye daan tas yaakaar ak Grand Mbagnick Grand Mbagnick ngemboo ngemb lu vert li wal leen ginnaaw tas yaakaar ngemboo ngemb lu bleu li takk na ko bañ na wicc na ñoom ñaar Grand Mbagnick tas yaakaar ndaysaan Grand Mbagnick tas ñu ngi ci de finale bi Grand Magic tas yaakaar Grand Magic tas yaakaar daan na ko tas yaakaar daan na Grand Magic tas yaakaar daan na ko tas yaakaar daan na Grand Magic daan na ko moo ngemb lu weex li yéena ko gis Boy Faye jëli na Boy Faye jëli na xale bi da koo bëgg a wéye la fu muy mujj ndaysaan fu ñuy na jëli Boy Faye bañ Boy Faye ndeysaan aatu réer na ak booy fay bañ na comme benn la ndeysaan ñu ngi fi waaye maa ngi nuyu le grand saltige caajaay Cheikh Bamba général gisuma la fii xaw foo mën a ne waaye sa xol ak sa xalaat ak sa bëgg-bëgg yëpp mooy li traditionnel le grand saltige caajaay ndaysaan nit ku baax nit ku woyof nit ku bëgg nit saltige caacaay Cheikh Bamba général yàlla na sa jàmm yàgg ndaysaan xale yaa ngi noonu di jàppante ba tey booy fay jël nañ tànk ba bañ na ndaysaan day bëre moo tax dinañ bëre waaye sénégalais yi ñuy seetaan ñoo ko def Boy Faye fi ñu la yegg sori na waaye génn na ci ndaysaan Boy Faye ngay bëre xale baa ngay bëre Boy Faye di bëre ci koom Boy Faye takk nañu la booy fay takk nañu la lan moo nar a xew maytul Boy Faye takk nañu la Ndaysaan Boy Faye zongale na door na ci suuf biir fee bien fee Ndaysaan nee na kaay indil samay ngemb moom Boy Faye Ndaysaan ñee ña ngay jargandalu Ndaysaan jël na biram bisin daan nañ ko Ndaysaan daan nañu ko daan nañu ko bas arbitre bi sifflé na tas yaakaar daw na yegg nañ ko sori mbot na daan na oh tas yaakaar daan na jël bu tas yaakaar qualifié na ndeysaan ndeysaan tas yaakaar qualifié na Gaskel Jaama daan na ñu ngi fe Ngoudaye moo la féete joor Boy Faye moo la wan ginnaaw ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu jërëjëf Var jërëjëf Var mbalu Kalidou Koulibaly bi mu arbitre bi ne woon penalty ña caaf xam waaye alhamdulilah ba fi Var amee waaye ki créé juumul waay waaye jërëjëf Var waay Ndeysaan Boy Faye ak Ngoudaye ñu ngi ci compétition bi ba tey Boy Faye Ngoudaye Boy Faye ak Ngoudaye Ngoudaye moo la féete ndijoor Boy Faye moo la féete càmmoñ xale ay ndaanaan lañu ñu ngi ci compétition bi ñoom ñaar ku daan da ngay dem final Boy Faye fiñ ko takk sori na Ngoudaye takk na ko caxabal na ko Boy bañ na Boy Faye daan na Boy Faye daan na ko Boy Faye dem na final Boy Faye dem na final demi-final Boy Faye qualifié na demi-final Tass Yakar na demi-final 29 qualifié na demi-finale. Ordi dugg si na stade bi yëpp yuuxu fil yaa ngay dagg xale yaa ngay yëngu kenn amatul sago ci moom ordinateur moment bi muy dugg si ñu ngi toll ci fële équipe nationale bu Sénégal bi mu ngi toll ci 44e minute ndaysaan fële ca Cameroun ma koy may fii ci Adrien Senghor di leen ko may fële ci Cameroun ndaysaan xale yi équipe nationale bu Sénégal booy jàpp gor booy jàpp garmi booy jàpp ndaanaan jàppal xale yi équipe bu Sénégal saa yi ñu dugalee bii rendre hommage ak ki nga xamante ni mooy Bouba Diop Sénégal mënu laa fàtte Bouba Diop yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana Pape Bouba Diop te ngeej mënuñu koo fàtte waaye Sénégal mënuñu koo fàtte ndaysaan ordinateur a ngi noonu moom ordi ma nga noonu ndaysaan lamba garaaw ndaysaan lamba garaaw xoolal kële ci turbine bi day jooy ba amatul sago ci boppam ba bëgg a jóge sax ci kaw cëppeelu ci suuf nga xam ne làmb aar la aada la cosaan la te day bégal xale yi ndaysaan première mi-temps bi jàll na fële ci Cameroun un but à zéro Ndeysaan xale yaa ngi noonu ñu ngi noonu ci compétition bi ordinateur a ngi noonu ordinateur x xale yaa ngi noonu ragal naa combat bee mooy gën a gaaw tas yaakaar ki ngay bëree ndaanaan la waaye ndaanaan la moom tas yaakaar xale la waaye am na jom xale la waaye mën naa bëre xale la waaye am na cër moom tas yaakaar ndaysaan combat baa ngi noonu mbokk sama caméraman bi sëñ Bassirou xamul lu muy def ndax équipe nationale bu Sénégal bi football jëmm jaa ngi fii ci adresse Senghor waaye xel maa nga fële ca Cameroun ay waay yàlla nañu yàlla suturaal defal ñu ndam at bu jot ñu ne kaan bi suñu kaan la yàlla bu yaakaar tas ndaysaan xale yaa ngi noonu ñu ngi demi-finale bi Gaskel Diamma ak Tas Yaakaar ña ngay bëre Tas Yaakaar daa a forcer bëre bi dóor na ko tànk Gaskel daw na ndaysaan ak Boy Faye Tas Yaakaar daa a forcer bëre bi Gaskel jëli na Gaskel am na ngemb xale bi dafa doole macha tas yaakaar macha allah xale la waaye am na force ndaysaan X9 door na tànk Boy Faye Boy Faye windeelu ñëwaat tas yaakaar daan na ko tas yaakaar daan na gaskel jàmme tas yaakaar dem na final diggante Boy Faye ak x ku daan am tas yaakaar Tass Yakar ndaanaan la xale la boo xamante ne bàyyi leen ko xel ci làmb bu caaxaane wut làmb foowe wut làmb lu ne mën na ko am ci làmb moom Tass Yakar daan na Gaskel Jamme jël bu rëy boo ko xoolee xam ni yor na bindu mbër yor na taay bi yor na doole bi Ndaysaan ba ñu ngi ci x ak Boy Faye X9 Boy tas yaakaar daan na Grand tas yaakaar daan na Gaskel moom tas yaakaar ndeysaan national bu Sénégal na ko Boy Faye Tmax Boy Faye Tmax équipe nationale dugal na bii ndeysaan ci moment bi combat di daw moment bi combat di daw moment bi combat koy seetaane ni en live waaye xale yi dugal nañ waay waaye jaara di Sénégal waay ci la Sénégal dugal deuxième biom pour Cheikhou Kouyaté tax na maa bëgg ñaari jabar Kouyaté kenn du moom ko ko borom jabar mooy toj terrain bi célibataire yi xaw ma lu ñuy def grâce Ousseyn Diop gi ak Adama ak sëñ Basirou duñu dara boo leen waxee dem ji ñuy juutal image di fulal image waaye gàcce ngalaama équipe nationale bu Sénégal eh am na ku ne ma woon Sénégal yor na ñaari biom ma koy wax nee naa a ah. Ndeysaan Boy mu ngi ci demi finale bi ba tey moom ak X9 X9 nag naanaan la dafa mën a bëre Boy la yegg sori na fi ñu la yegg sori na fi mu yegg sori na di nga ci génnam déet Boy Faye yegg na suuf X9 Boy Faye tegale ko sees Boy Faye bañ na daanu na X9 daan na Boy Faye X9 daan na Boy Faye X9 daan na Boy Faye X9 ndaanaan la ndaanaan la. Malick nuyu naa la. kontaan yow maa ngi lay fay jëriñ. yëg-yëg nga am tey ci bis bi nga xam ne c'est la deuxième fois mu koy def. Hmm. defoon na ko terrain gaal gi defaat ko une deuxième fois ma kontaan trop ñi amateur yi wuyu si. ni amateur yi wuyu si mbër yi vraiment tey am nañ mbëru champion yu bëri yu fi daje kontaan naa trop ci décoration bi. ñu gis say nawle arbitre yi nga xamante ne lamb dafa amoon fee sax lamb ji jeex ak match équipe nationale Sénégal bi teewul ñëw nañ fi ngir ànd ak yow bis bi sa diggante ak ñoom lan la. bon mel na ni ñoom la ñuy sargal parce que ci ñoom laa nekk ci ñoom laa bokk xëy na am na yu bëri yu may def sax ñoo ma ciy jàppale ba mu mun a ant donc euh, buñ ma sargalee rek mel na ni ñoom lañ euh, ñoom lañ sargal tey Sénégal day football mënoon nañ combat yi jeex ñu dem seetaani match bi mais ñoom ñoo kaw bàyyi ñëw teewe ko ma kontaan si ñoom trop. gis naa presse bi tamit kontaan naa ci yéen lool parce que yéen ñëpp a groupe ñëw gis naa ñu bëri ñu fi mobilisé wu pour gën a bësal euh, jëmal bés bi. pare bi nag woo na ma wax dëgg fa yàlla muy Badara Ndiaye nekk mag ci man gagné mairie Thiaré Ndial gi yàlla dogal euh, waajuram bu góor feebar ba hospitalisé. du urgence la dem foofu moo tax mu ñàkkul teew mais mel na ni bu ma teewee rek moom teew na parce que sama frère la kontaan na ci yéen ñëpp waaw booy Faye nag ñàkk na léegi moo ko jëloon keroog tey ñàkk na demi final waaw. mel ni équipe bu Sénégal bi na looy wax ci loolu. ñu ñaan score bi yem foofu bu Sénégal mënul doole mu yem foofu vraiment la ñu yokkaat waaw ndoom li ñëpp si waat fii Sénégal incha allah kontaan na ci yéen ñëpp. tas yaakaar nga finaalo sa diggante ak T-Max wala X9 ban yëg nga am ci final bi ak compétition bi ni mu déroulé li nga ci wane. waaw xam ñun dañuy sant yàlla di julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ñaanal sam papa yàlla na yàlla na ko yàlla yërëm ñu ñun ñu finalu suñu drapeau grand frère mbétte la si ñun ndax kii lu ne liggéey na ko si làmb waaw te borom baax la. billaahi. waa sama adversaire moom. waaw na ñëw ñu neexal ko ma daan ko rek moom ndaanaan la mais ndaanaan bu dajeeg ndaanaan bu dul ndaanaan dëgg ndaanaan da koy réer dañ koy nangal champion am nag bëre nañ am dalaay daan na ma mais ku mu dóor danga may aliyat bi waaw. maa ngi sant waa làmb yëpp di sant Malick suñu suñu suñu lépp Malick moom suñu ci boolo quoi. di ko ñaanal yàlla li mu bëgg si si booy rek yàlla defal ko ko quoi waaw tas yaakaar nag quoi moom champion la quoi ndax bu dem ba final rek xam nga ni champion la mais moom maag moom bu soo laale quoi mais xam naa fàtte na ko Gambie. ko daanoon am na laay te ku ko dóor di ko abal yat waaw mais làmb la rek damay làmbaliwaat rek garaawul na bàyyi ma jël ko rek wax moom mooy loolu waaw. ndax kan moo a jël Malick maa ko war a jël. maa ko war a jël di sant nag sama waa koñ xam nga di sant sama waa atelier sama waa gaale xam nga sama waa koñ bàyyi ma kenn ndax ñoom dañuy sonn ci man quoi di sant Idi bu baax Idi ndax chaque jour moom damay sonn ci affaire yi naa man demal demal bul baay bilaay walaay taalaay nante dañ siy nekk nag maa daanu combi premier tour dur saanee ma daan ma ñëw dawal si fii te bu ma jógee fii oto bu jël dem si vingt cinq naagi arbitre bi sifflé na mbokk yi baa ngi noonu dox ci diggante tas yaakaar ak T-Max wala boog tas yaakaar ak X9 ndeysaan X9 nag marque tas yaakaar moo la féete ginnaaw X9 moom nga lool ñoom ñaar mës na ñoo laale X9 daan ko tas yaakaar ne ku dóor di ma abal jat bi X9 moo éliminé Boy tas yaakaar moo éliminé Gaskel Jammeh éliminé Grand Mbagnick ndeysaan xale yaa ngi noonu Boy Faye moo éliminé Ngoudaye ci compétition bi ay ndaanaan lañu ndaysaan moment bi may wax ak yow Sénégal dugal na troisième pion ndaysaan pour Ismaïla Sarr jërëjëf Sénégal kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa cosaan yi ñaan leen kubo mooy suñu ndam mooy suñu sak ñu bàyyi yàqalante bi mooy ñu bàyyi yoole bi booy tas yaakaar jëli na ko tas yaakaar jëli na ko X9 ñu bàyyi yàqalante bi bàyyi yoolante bi bàyyi sabote bi bàyyi jiital équipe nationale bu Sénégal ba pare di ko faxastal kenn du noobul mot mot tas yaakaar mot na mu bañ ndeysaan tas yaakaar mboot na X9 X9 bañ X9 tas yaakaar X9 moo la féetee càmmoñ tas yaakaar moo la féetee ndijoor tas am na lu mu bëgg ndaanaan la ci bëre xale la waaye bu bëree nga xam ni ndaysaan xale la moom tas yaakaar waaye am na xarañte bëre am na xemmem téef fu bëre am na cofeel ci bëre moom tas yaakaar waaye X9 plaqué na day daanu daan na daan na X9 daan na tas yaakaar X9 jël na compétition bi X9 jël na compétition bi